mbokk yi seen chaine bi di GMT TV bu ne Mosquée bu Touba moo leen indil ay émission yu am solo lool jëm ci xamle jàngale fàttali ak yeete bokk na ci émission yi ulumul li ci daara ji jëm ci jàng ak njàngaleem alquraanul karim ak lépp lu ci aajowu di am le premier ci weer wu ne siiratu nabi di mboorum yonent bi salallaahu alayhi wa sallam lépp lu jëm ci ak dundam ngeen ci ànd ak Serigne Mourtala Sylla émission suluk di melokaan jëm ci ni ab jullit war mel ak ay jikkoom di am le 10 ci weeru ne émission bi nag dinañ ci dalal boroom xam-xam yi seen xam-xam màcc ci fànn yi le émission liqaat ñu naan ko ndaje ngeen ci ànd ak Serigne Abdoulaye Diop ak ay invité am Almanbaul Mouridiyyah di ballukaayu murid yi di am le 20 ci wu ne xaayaatu Cheikhul Khadim di émission bu jëm ci dunduk sëriñ bi ngeen ci ànd ak Serigne Fallou Bousso Tamba di am le 25 ci wu ne bokk na it ci émission yu am solo yi leen GMT TV indil di dunduk soxna yi nekkoon ci kër sëriñ bi fondation daarul maharif di majalis ñu leen ci jàngal mbooleem téere xam yi di am le 3 ak le 17 ci weeru ne ngeen ci ànd ak Serigne Saliou Diakhaté ak Serigne Mourtala Bousso émission yow la kan di am le 31 ci weeru ne gàggantiku di émission bi tontu seeni laaj ngeen ci ànd ak Serigne Abdou Lahad Bousso Thierno ak ay invité am di am le 9 ak le 23 ci weeru ne bokk na ci it jotaayu murit di émission bu am solo ñu ciy waxtaanee ay thèmes yu wuute di am le 13 ak le 27 ci weeru ne ngeen ci ànd ak Serigne am di mbokk yi lii yëpp di ay émission yu am solo lool yu leen seen chaine bi di GMT TV indil di leen xamal jàngal ak fàttali bu ngeen bëggee am mboolem émission yi bu leen fàttee abonné ci chaine bi di GMT TV di télé bi njëkk ci jumaay Tuubaa ju mag ji